muy émission boo xam si dañ ciy waxtaanee xam-xam bu jëm ci wàllu tur yàlla xam-xam bu jëm ci wàllu asraar xam-xam bu jëm ci wàllu maanaam tawat yi chaque émission danaa jël benn xasaayit bu suñ tubaa waxtaan ci danaa waxtaan ci ñaari feebar yi dal doomu aadama yi danaa waxtaan ci ñaari tur yàlla ba beneen imission tey bu ubbee indi njariñ ci wàllu xasida sindiidi yallaahu bil Mustafa sindiidi yallaahu wa bi xalilika Ibrahima yallaahu xasida googu suñ tubaa moo ko bind bayit wu nekk dafay jeexee ci allahu te yàlla turam yi bëri na waaye tur yàlla dëggantaan ismu saati mooy allah allah mooy turam wi gën a wér te gën a màgg te gën a leer mooy ismu saati mooy tur jëmam moom allah moo tax si boobu ci kaaraange daf ciy dox bu baax képp koo xam ne kii bëgg nga yàlla musal la ci cat ak làmmin soo ko jàngee ba agsi ci bayitu wa kun muwasan lana min sarri si hasadin max sarri fammin wa sarri l ayni yallaahu wa sarri sihrin wa sarri xalqi insi moo max jinnihim wa sawaati suumi yallaahu ñaari bayit yooyu képp koo xam ne ki jàng xasida xasaayit gi ba agsi fi bayit bu ci nekk nga baamu ko 111 fois téeméer ak fukk ak benn soo ko àggale xasaayit gi yàlla dana la musal ci catu bër ak catu làmmiñ kon njariñ la na ko def même ñi nga xam si it maanam bëgg nañ mu law nañ ko partagé ci groupe whatsapp bi nañ ko partagé ci facebook nañ ko partagé ci youtube ak instagram ak twitter fépp maanaam askan wi man see jàll ndax émission leeral xam-xam émission la boo xam si li ko tax a jóg mooy waxtaan ci xam-xam ak ci tur yàlla ak ci asrar ma ñëw ci tur yàlla bi ñuy wax ba tey allahu allahu mooy premier tur yàlla ay njëriñam allahu tur la boo xam si boo xoolee ñeenti araf la alif la ak laam ak alif ak hal boo ko xisaabee daf lay jox 66 allahu 66 la boo xisaabee tur yàlla bi képp koo xam ne kii bëgg nga foo jëm ñu kennal la dangay ngay dem ci ay jàng wala da dem ci ak cant wala da ngay dem ci maanaam bërëb bëgg ñu kennal la bëgg ñu kennal la na ngay werd yaa allahu yaa allahu 106 fois 106 juróom-benn fukk ak juróom-benn loolu tur yàlla woowu mën na ko tur wi topp mooy raxmaanu raxmaanu dafay dox ci wàllu yërmande ko koo xam ne kii da bëgg yàlla defal la nga am yërmande ci doomu aadama yi am yërmande ci mbindeef am yërmande ci rab àll yi ku la gis yërëm la maanaam am ci yow yërmande ci wàllu jàppal la ci wàllu xaalis jàppal la ci wàllu am-am del werd yaa raxmaanu yaa raxmaanu yaa raxmaanu deux cent quatre dix neuf fois deux cent quatre dix neuf fois moom yaa raxmaanu ndax chaque émission yooyu dañ koy def daal ci maye maye ko ndax am na ñu dugg émission bi ñoo xam si maanaam soxla nañ Serigne Mor Talla Tawfekh di yëngatu ci wàllu tur yàlla ak ñi nga xam si dañuy gëstu xam-xam ak ñi xam si bëgg nañ maa gis te mënagul ma gis ñu mën a jàpp ci jàpp ci tur yàlla yooyu ba keroog ñu may mën a gis waaye tamit mboolem koo xam ne kii soxla nga ñëw ubbi nañ suñu bunt ku ñëwoo woo jot ku ma woo jot ma. numéro yi ma joxe it ku ci envoyé vocal am na whatsapp boo ma envoyé vocal danaa la tontu lu mu yàgg-yàgg bàyyi ko fa dana danaa danaa ko lire danaa la tontu numéro whatsapp bi bi ci njëkk mooy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 beneen numéro bi kuñ ci appel normal jotuñu waaye tamit ku ci envoyé vocal di euh, ñu tontu la whatsapp la moom it muy muy 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 mbokk yi nekkee bitim réew ñoom bala ñoo composé numéro bi dañuy jiital plus 221 daal di composé 76 369 27 27 76 369 27 27 ku nekk bitim réew mën ngaa jiital plus 221 76 369 27 27. ma leeral tuuti ci feebaru góor gu tële ci wàllu sëy tubaab bi ko wooyee impuissance sexuelle góor bu fekkee sa deret doxut ni mu war ci yaram wi deret ji bu a circulé ci yaram yi mën ngaa amee tële ci wàllu sëy tox cigarette day indi tële ci wàllu sëy naan sàngara day indi tële ci wàllu sëy tànk yi métti day indi tële ci wàllu sëy biir bi métti day indi tële ci wàllu sëy feebaru nerf sciatique nerf sciatique mooy koo xam ne kii sidit gi nekk ci digg ginnaaw gi yax gi nekk ci digg ginnaaw gi moo ko tànc day indi tële ci wàllu sëy feebaru mballu koo xam ne kii da ngay mballu wéet di fay sa kanam kuy mballu di wéet di fay sa kanam beeg sa bopp dafay indi tële ci wàllu sëy feebaru prostate dafay indi tële ci wàllu sëy prostate bu nekkee ci yow boo safee tur ndox boo yeexee ndox mi day génn day génn doo ko mën téye day indi tële ci wàllu sëy moom it dañ ko saafara garab gi ma ci yor ku ma lu mu yàgg-yàgg ci yow fukki fan ak benn mu deñ te bu deñee dootul ñëwaat. alhamdulilah mbokk yi kon mu mel ni maanaam góor gu tële ci wàllu sëy dañ koy saafara dañ koy faj ndoxum siti dañ koy faj tànk yi dañ koy faj biir bi métti dañ koy faj dañuy ñaan ci koo xam ne kii dangaa bëgg am ay këyit nekk bi bitim réew bëgg am këyit ngir mën a liggéey wala bëgg am këyit ngir mën a ñibbi Sénégal dañuy ñaan ci ku cat jàpp catu làmmiñ wala catu bët dañuy ñaan ci ku bëgg am bayre ak ku bëgg am ubbeeku liñ euh, képp koo am ne ki soxla nga ñu numéro boobu di jàll ci kanam écran bi numéro yooyu boo ci envoyé vocal boo whatsapp boo nekkee bitim réew daañu la tontu foo mën a nekk ci bitim réew daañu mën a fexe liñ lay indil di nga ci mën a jot ku nekk ci biir réew mi nag mën nga ñoo woo ci numéro yooyu boo ñu wooyee appel normal di nga jot li ñu ko tëjee rek mooy bis bi bis bi nga xam si Sëriñ Muntaxa moo ko woote muy bisub sant yàlla bisub sikkar tur yàlla te sas ko njabootug Baay Faal gi àllarba maanaam di ko rafetlu di wax ne bis boobu ku ko man na nga jël sa kurus nga werd laa ilaha illallah muhammad set 7000 maanaam juróom-ñaari junni soo ko mënut nga werd ko 700 juróom-ñaari téeméer wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin